bismillahi arrahmani irrahim alhamdulilahi rabilalamin walsalaatu walsalaamu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa asxaabihi ajmain mbokki jullit yi assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñi ngi dellu siwaat ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala di dajawaat ak yéen ci minbarul islaam euh, bëlër moo nekk ci xarala gi seen mbokk Ibrahim Khalil Lo moo nekk ci mikrobi bi ànd ceeg euh, docteur Mohamed Ahmed Lo ni ñu leen ko dige woon ci waxtaan wi ñu mujjoon a def te ubbi woon bunt boo xam ne mi ngi jëmoon ci euh, qawaid fil bidaa muy ay tënk yoo xam ne danañ ci mën a xamee lan mooy bidaa ba man koo wattandiku man cee xamee itam lan mooy sunna ba man cee xir ndax li nuy jëf dëppoo ak ngërëmul borom bi tabaraka wa taala te lay tax mu dëppook moom mooy ñu roye ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa kon ñi ngi jégalu ci alxamis bi weesu ñàkk a dégg ngeen ñàkk dégg waxtaan wi jàmm rek la woon waaye borom bi baaxi nañu ñu dellu siwaat tey ànd ak ustaas docteur Mohamed Ahmed pour mu wéy ak yéen incha allah ci bunt boobu nga xam ne moom lañu ñu ubbi woon xam nañ ne ci waxtaan wi weesu euh, jotoon naa leeral am solo gi nga xam ne moom la bunt boobu am solo ci dund jullit euh, ba tax mu war koo nafar war koo jàng bu baax di ko fàttaliku ndax xam ngeen ne borom bi tabaraka wa taala fu mu tuddee amanu daf cay teg waa wa amilu saalihaat kon amal bi toujours da ciy sant da ciy sart mu nekk saalix kon du jëf ju nekk rek la yàlla di nangu waaye jëf ja day nekk jëf ju yiw jëf ju yiw joojee nag mooy jëf joo xam ne rek wéet na ci biddaa te bu xasee wet ci biddaa rek day nekk jëf joo xam ne kon euh, borom bi moo ko digle te itam royee nañ ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon borom bi moom jëf jooju rek lay fay wax ne fa man kaana yarju liqaa rabbihi fal yaamal amalan saaliha wala yusrik bi ibadati rabbihi ahada borom bi wax nañu ni ñuy waajale daje bi nu nar a dajeeg moom ëllëg nee na koo xam ne gëm na daje boobu na jëf-jëf ju baax te jëf ja mu bañ koo yàqaat ci bokkale nu ñuy def nag ba am jëf ju baax jooju mooy rek nu ñuy def ba wattandiku biddaa comme ni nga xamante ne ci mbay képp koo xam ne bëgg nga am gàncax gu rafet da ngay fexe ba wattandiku am ñax bañ faa nekk lu sam ñax gën a manqué rek gën a néew su ko defee sa gàncax gën a rafet waaye lu sam ñax bari itam nag sa tool noonu lay yàqoo noonu lay ñàkkee rendement loolu misaal la ci jëf joo xam ne ay biddaa da caa tàbbi leeraloon na itam lan mooy biddaa euh, kon tey dañoo bëgg mu jàll ak nun ci wax ñu nag jagle yi nga xam ne muy particularité yi nga xam ne euh, biddaa am na ko ñu gën ko ko mën a xame dëgg dëgg dëgg nga xam ne mooy signes yi koy gën a xamle ñu koy tuddee xasaa isul biddaa wala particularité de biddaa yi nga xam ne moom la am foofu lañ bëgg mu tàmbali feek nun tey kon docteur bismillah bismillahi rahmani rahim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 asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi déglukat yi minbarul islaam ñu ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci xéewalug sunu borom tabaraka wa taala ji xéer ci déglu yiw ndaxte leenu mën cee xame lu baax lu nuy dolli ak mbaax man cee xamee lu dëng lu nu mën a dimbali ci daw ndëngte yàlla nañu sunu borom tabaraka wa taala jàpp ndalal loolu Cheikh Ibrahim li nga laaj lu am solo la ci bunt bi nu nekk muy buntu jéem a xam lan mooy bidaa ba man koo daw bokk na ci yi nu mën a dimbali ci loolu mooy xam xasaa isul bidaa xam yi nga xam ne bidaa da koo jagoo ndaxte kat duñ fàtte ne waxtaan wi yépp guddi gi ak bari gi yépp li nga xam ne suñu ko juralee jaayu ñu nan ci mooy saa buñ gisee lu bokkul ci diine ji nu xam ne lii bokk ci kooku mooy résultat boo xam ne suñ ko ci amee rek li nu taxoon a jóg alhamdulilahi am na lay cay tegu jéego ba jéego ba ca war a tegu mooy daw loola nag ginnaaw boo xamee ne xam nga ko ba noppi dellu rek ci xadiisu xudayfat ibnu alyamaan radiallahu taala anhu nit ñi dañ daan laaj yonent bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam aw yiw ma di ko laaj aw ay ngir ragal mu dab ma wala ngir ragal a tàbbi ci ay woowu yi biddaa jagoo ay yëf la bokk na ci boroom xam-xam yi dañuy wax ne lam yarid fi nahyi anha gaaliban adillatun xaasa wa innama yustadallu ala nahyi anha bil adillati alkulliyati alaama bidaa dañuy wax ne li gën a bari ci biddaa doo am dalil bu jóge ci sharia boo xam ne day ñëw toppal la bidaa yi nit ñi di def yépp yépp benn bu ne mu ne la bii daganut nangam daganut nangam daganut nangam bidaa la loolu doo ko gis ci sharia sharia du waxe noonu la ko waral mooy nit ñi yi ñuy fent yëmut fenn te sharia ay ndigalam dafa waral làmboo lépp moo tax ku jóg di jëf xeetu jaamu yàlla woo xam ne saxul ci diine ba noppi naan la waaye kenn terewu ko kooku amul fiq ci bii bunt kooku déggul bunt bi kon ñoom dañ lay wax ne li ëpp ci eh, ay firnde yoo xam ne dafa jóge ci borom sharia muy tere bidaa day doon firnde joo xam ne su ñëwee aw lay woo xam ne su ñëwee day làmboo lu bare bare bare bari ci suufam boo delloo ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kullu bidaatin la kooku benn atte la boo xam ne lépp luy bidaa day daal di dugg ci biir nga dellusi ci xadiisu man axdasa fi amrina hada maa laysa minhu fa huwa radd ku sos ci sun mbir mi dara kooku dañ ko koy delloo kon kooku dangay ngay daal di xam ne ku sos day daal di tàbbi ci biddaa kon sos diine ji baaxuwu ko loolu sax dana ma fàttali laaj boo xam ne danga ko junjoon ci bi weesu te détaillé wuñ ko woon nam jaadoo woon mu di eh, maa laysa minhu man ahdasa fi amrina hada maa laysa minhu am na nit ñoo xam ne dañ lay wax ne ah kon kat ku sos loo xam ne ci la bokk kon kooka dana baax waaye fekk na sos lu ci bokk ci boppam dafa mënta nekk kooku ci qawaidul usul dañ lay wax ne euh, qaydun la mafhuma lahu loolu mooy lan moo di lim ne man axdasa fi amrina hada ma laysa minhu ku sos ci sun mbir mi lu ci bokkul kooku fedd li la goo xam ne dalay won ne dalay won ne luñ ci sos lu ne lu ci bokkul la kon doo ci déggee ne ku ci sos lu ci bokk ndax sos lu ci bokk mënta am ñaar yooyu mënuñoo ànd sos bi nga ko waxee rek la ci bokkut kon loolu mënta nekk loolu moo tax bu dee ulamaul balaaxa ñu ngi koy tudde wasfun kaashif wasf boo xam ne dafa lay leeralal rek mbir mi fedd feddlil na ko bu dee ci borom xam-xam yi euh, usul ñi gën a xóot ci wàllu sharia ñu lay wax ne kooku qaydun la mafhuma lahu ab tënk la waaye nag bul ci jiim ma déggee dara loolu dafay rot même ba ci alquran boo xoolee waxi suñu borom tabaraka wa taala euh, am na benn aaya ci suuratul araf boo xam ne ñaari tënk a ngi ci yoo xam ne benn bu ci ne qaydun la mafhuma lahu ci benn aaya boobu qul innama xarama rabbi alfawaxisha ma dahara minha wa ma batana wal isma wal bagya bi gayri alxaq wal bagya bi gayri alxaq xam nga ne mbewte mënta doon dëgg kon kooku melokaan la woo xam ne daf lay leeral ne mbewte ci boppam foo ko fekk du doon dëgg kon bul ci déggee ne kat kon ku bewtu fekk mbewte ma lu baax la wala dëgg la déedéet kooku xëy la boo xam ne amul mafhum mu teg ci ne wa an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana an tushriku billahi ma lam yunazil bihi sultaana kon bokkaaleeg yàlla loo xam ne wutalu ko firnde amul benn bokkaale boo xam ne yàlla wutal na ko firnde kon kooku ak feddli la bul ci dégg ne kon kat ku am bokkaale woo xam ne firnde am na ko bu la neexee nga bokkaaleeg yàlla leneen déedéet kooku xëydi la boo xam ne la ma fooma la kenn du ci jéem a dégg am na loo xam ne mënees na caa sukkandiku ngir bokkaale kon kooku tomb la boo xam ne dan ci daal di jariñoo ne maa laysa minhu kooku euh, duñ ci jëlee ne mënees na cee sosé loo xam ne ah biddaa lay euh, mën na laa ubbil buntu daal ngir nga jafe ko euh, ñaareel bi ci yi nga xam ne biddaa daf koo jagoo dañ lay wax ne annaha la takunu illa munaqidatan li maqasidi shariati al islaamia bidaa foo ko fekk bidaa ci diine bu dikkee dafay teppi ni ñu tere woon sharia al bu dikkee day juyoog moom daf koy naqdu daf koy firi kooku sax daf lay wane ne moom jëmmi jëf jooju bidaa di def rek ci adilla kulliya yi ñu doon wax ci la bokk yi wane ne baaxul ci la bokk ndax sharia ginnaaw borom daf koo tër wàcce ko ba ne nii la beneen nii laa ko gërëmloo ku indi loo xam ne bu dikkee day juuyoog loola kon kooku rek firnde la ci ne loola moom baaxut des ko war a bàyyi ñetteel ba dañuy wax ne an al bidaa takunu gaaliban bi fi'li umurin lam tu'raf fi ahdihi wa ahdi saxaaba radiallahu anhum dafay doon bokk na ci yim jagoo moo di foo ko fekk la gën a bari day doon jëf ay jëf yoo xam ne ci jamonoy saxaaba ya ak jamonoy yonent bi sallallahu alayhi wa xamuñu ko suñ jógoon tey fekk ñiy jëfandikoo bi daa toog di ko jëfandikoo te tudde ko diine buñ leen xoolee duñ xam lii ñii li ñuy def lu mu doon kon kooku ci yi daa jagoo ci la bokk wuute na lool kon ak loo xam ne dafa sax ci sunna bu saxaaba yi dikkee ñoom buñ del si woon ñoo lay gën a dégg loola gën la ko xam ñeenteel ba bidaa dafa nuroo ak jaamu yàlla yi nga xam ne dañ ko yoonal kooku ci ay jagleem la bokk kii fent bidaa ba di ko jëfoo la muy jëf la muy jëfee boo ko xoolee dafay nuroo ak jaamu yàlla yi nga xam ne dañ koo santaane moo xam dafa koy nuru ci aw melokaan ndax léeg-léeg ak julli lay doon wala daf koy nuru ci ab tolluwaay su fekkee lu ñuy lim la wala mu nuru ko ci jamono su fekkee lu ñu fental jamono la léegi léeg nga gis biddaa boo xam ne dañ ko wutal jamono joo xam ne saa bu waxtoom delsee rek mooy doon waxtoom nuróole ko ak eet yi nga xam ne dañoo sax ci lislaam lu mel ne feetu korite wala feetu tabaski nga wut sa feet goo xam ne yaa ko sos ci biir diine saabu bu waxtoom dikkee nga jëfe ko kooku nuroo la ci wàllu jamono léegi léeg mu nuroo ci wàllu béréb kon yooyu daal ay mbir la yoo xam ne Cheikh Ibrahim eh, bokk na ci yu gën a leeralal nu xam bidaa euh, bokk na ci nga xamaale yi nga xam ne daf koo jagoo nga xam ne bokkewu ko ak ak lenn jazakumullahu xeyran <coughs> kon defe na tomb yooyu euh, bu leeree ci noonu bu baax rek dana ñu daal di mën a am ay tegtal ci bu ñu gisee mbir daal di mën a xam ne euh, bidaa la comme noonu nga ko waxee comme lislaam dafa doon diine joo xam ne moom mooy wéy ba ba àddunay tukki te doomu aadama yi itam seeni bànneex yi nga xam ne ci la biddaa di sosoo euh, jamono bu nekk dafay yokk te jamono bu nekk dafay wuute kon ni nga ko waxee wàññi ko wutal ko ay mbir yoo xam ne dañ koy wàññi ne léeg-léeg lii biddaa la loolu ci lu limité lañ ko mën a def waaye loo xam ne luy wéy la kooku wutal ko ay tënk yoo xam ne ay règle yoo xam ne lu ca tàbbi rek ñu daal di xam ne loolu ca la bokk comme ni ko borom bi tabaraka wa taala defe ci yi nga xam ne yëpp daf koy xaraamal ci nit ñi wërta lekk wala lu ñu wërta naan ne rek kulu min tayyibaati maa razaqnaakum yu teey yi nga xam ne moom laa leen wërsëgal dëgg na am na ca yum ca tudd waaye euh, alxabaais lépp loo xam ne tabbi na ci nga xam ne sobe la lépp loo xam ne luy lor doomu aadama la loole bu boobaa dafay daal di nekk loo xam ne lu xaraam ci doomu aadama lay doon ci mu jëfandikoo ko naka itam kon loolu nga wax ne lépp loo xam ne gis nañ ne dafay juuyoo ak sharia dafay di sax loo xam ne lu sax ci sharia la euh, wala loo xam ne bu yonente bi sallallahu alayhi wa ak i saxaabaam bu ñu gisoon loola ñoom duñu ko xam loole ak luñ ko askanale askanal diine ak lu mu yor yor ay melo yoo xam ne sax xaw na ko nuróog diine euh, dañ ci dal di mën a xame ne lii kon euh, bokku ci bidaa la su ko defee ñu daal koy mën a moytandiku waaye loolu it kon dana nu yóbbu ci ñu sàkku nga leeral nu beneen tomb boo xam ne mooy ay suróot yoo xam ne nit ñi danañ di yaakaar ne eh, bu amee rek loola du tax mu nekk biddaa maanaam bu ñu yaakaaree ne moom lii njariñ a ngi ci wala daal ñu yaakaar ne ki koy def daal yéeneem sell na wala yu demee noonu ñu jàpp ne ay sart la yoo xam ne ñoom bu ca amee rek loola dana tax kon mbir mi du nekk biddaa donte nit kee ko sos foofu itam bëgg nañu nga leeraw nu fi bu baax a baax. alhamdulilah euh, loolu ni nga ko waxee noonu la demee mooy am na ay mbir yoo xam ne nit ñi dañoo jàpp ne ay charte la ci biddaa te fekk loolu du ci charte maanaam du condition ci mu doon biddaa bokk na ci bi ci jëkk moo di charte ñu ne biddaa bi du am benn benn benn njariñ mën naa am njariñ waaye njariñ li ci nekk. la ca ci lor daf ko ëpp te xam nga ne sharia bu lor dikkee bu dara dikkee am lor am njariñ ñi xool gis ne lor ji moo ëpp njariñ li bu boobaa sharia daf koy tere moo tax dañ lay wax ne laa yushtaratu xuluwu lbidaati min baad alfawaid walmanafic lakin janib almaslaxati fi irtikaabiha marjuux fala yubna wal wala yultafatu ilayhi léeg-léeg nga gis bidaa boo xam ne danga ci gis ay njariñ ku jékki-jékki fent dara moo xam noo ko tuddee muy bis nga jékki-jékki rey ay gàtt wala nga rey ay nag woo mbooloo ñuy ñëw ay miskin nekk ca ak yi fuqaraaw ñoo xam ne bu yàgg lañ ko joon a lekk daanaka lu am solo ñu dikk lekk ca ba rek ñooñu am nañ ci njariñ la chaque ne loolu njariñ a nga ci biir waaye nag buñ xoolee wetu njariñ googu ak wetu lor gi ci nekk muy fent ci biir diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne amul woon nga indi ko boole ko ci biir diine jooju loola di law kenn du xam fu muy yem bu yàggee mën a raafal sax ya nga xam ne dafa jóge woon ci yonante bi sallallahu alayhi wa sallam kooku lor ji ci nekk mu ëpp njariñ ñaareel bi di duñ sart ci bépp bidaa ne ki koy def faw rek jaamu yàlla la ci jublu léeg-léeg dana am bidaa yoo xam ne boroom jubluwu ci jaamu yàlla waaye dana doon bidaa comme lu mel ne roy roy yéefar yi ñi nga xam ne nekkuñu ci diine lislaam nga di leen roy ci seen melokaan wala nga roy leen ci lenn ci seeni jikko yu ñaaw wala nga di leen roy ci lenn ci seeni feet loolu même boo ci jubluwul woon jaamu yàlla itam kooku moom bi daala boo xam ne des ko euh, sos ci su fekkoon ne jubluwoo ci jaamu yàlla it kooku boroom xam-xam yi biddaa lañ koy tudde ñetteel bi moo di sartuñu ci biddaa itam ne ki koy def faw dafa doon koo xam ne ku yor yéene yu ñaaw la ci diine kuy fexeel diine ji la bëgg ko yàq déedéet kooku du ci charte mën naa doon koo xam ne yow kese la bëgg lu baax la bëgg dafa xér ci bëgg a jaamu yàlla moo tax mu indi bidaa waaye dafa juum ndaxte dafa euh, jaare euh, dafa jéem a jaare kër ga ci fudul buntam loolu day njuumte moo tax Abdullah ibnu Mas'ud bi nga xamee ne euh, ay mbooloo dañoo dajoo dañoo dajaloo ca jàkka ja am ku taxaw ci seen biir naan leen kàbbar leen téeméer ñu kàbbar téeméer bu ñu àggalee mu ne leen wax leen euh, sàbbaal leen téeméer ñu sàbbaal téeméer mu ne leen wax leen laa ilaha illallah téeméer ñu wax laa ilaha illallah téeméer am ku ji ku leen gis daal di dikk ci abdullah ibnu mas'ud ndax booba saxaaba yi fi des néew nañ waaye ca la bokk ñu ne ko nun de gis nañ ci jàkka ji loo xam ne daawuñu ko gis kaay xool mu dikk taxaw xool leen nañuy def biñ àggalee mu ni leen yéen dey benn nun xamunu wala su fekkee xam nañ yéen kon ak réer ngeen di sos yéen a ngi sos ak réer ñooñu lan lañ ko wax ñu ne ko yaa aba abdirahman ma aradna illa al xayr noonu de lii nuy def aw yiw rek lan ci jublu mu ne leen wa kam min muridin lil xayri lan yusiba bari aana ku bëgg aw yiw te fekk yiw wow doo ca mën a jot ndax yow itam dafa am yoon woo xam ne ci ngay jaar door caa àgg waaye doo toog ak sa yéene rek xotti fu la neex nga ne foofa euh, béréb sàngam laa jëm te jubluwoo foofa doxoo jaar ci yoon wu jëm du tax nga àgg kon ki bëgg te bëgg ko ci diine moom wenn yoon la am muy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam su fekkee jaar na ci yoon woowa dana àgg su fekkee jaarul ci yoon woowa nag ak lu wax ji bari bari ak lu yéene ja baax baax du tax àgg gi am moo tax dañ lay wax ne jaamu yàlla gi ngir mu baax sell gi day am ba noppi topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tegu ci ñenteel bi moo di sartu ci biddaa itam ne bu mu am lenn luy nuru cosaan luy nuru dalil léeg-léeg nga gis biddaa boo xam ne da ngay dem ba jàpp ka ca nekk mën naa dem ba am lëntum defe ne am na dalil dalil dañuy wax ne bu fekkee dafa ñëw nekk mujmal dafa dikk leer luñ ko teqale wuñ ko faaw nga dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu leeralal la ko ginnaaw moom moo dikkoon di dund alquran bu alquran dikkee joxe ab atte boo xam ne dañ ko lëm faw nga dellu ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngir mu leeralal la ko soo ko deful lëm googu yow mën na laa dugal ci biddaa bu ñu xooloon comme niñ ko misaale woon ci jataay bi weesu waxi borom bi tabaraka wa taala yaa ayuha alladina amanu dkuru llaha dikran kasira tudd leen yàlla ak tudd gu bari ci naka nan lañ koy tuddee bu doon dama jékki-jékki jóg fental sama bopp ëb lim ne nangami junni nañ koy dikkar bis bu set woo sama mbooloo jox leen ko ne leen faw na ngeen di xëy def lii di ko gont di def wala ma dikk ci fekk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xaddis yoo xam ne daf cee soññee ci li ñu tudde xilaqu zikr ay jataay yoo xam ne jataay yi zikkar la ma dikk jataayu zikkar ma am ci wenn déggin ma ne déggin wi mooy ma def ab géew di yëkkati sama baat ca kaw moo xam damay eh, yooxu ñu di ma aw wala dañ koy àndandoo di ko defandoo benn yoon ma jàpp ne lii mooy xilaqu zikr yi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax kon kooku njuumte dana dikk li tax moo di loolu dafa nekk benn dalil maanaam benn firnde boo xam ne dañ koo lëm lu koy teqale mooy nga dellu ca yonente ba sallallahu alayhi wa alihi la mu doon dund moom ak i saxaabaam nan lañ doon tudde yàlla tudd gu bari su ma dellusee ci moom danaa gis ne moom yonente boobu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam daana zikr daana tudd yàlla am nay tudd yàlla yoo xam ne ay lim la ko wutaloon am tudd yàlla yoo xam ne wutalu ko woon ay lim bu buñ delsee ci jataay xam-xam jataay zikri yi danañ gis ne bépp jataay boo xam ne mas naa am ci jamonoy saxaaba yi ñu tudde ko xalqa rek xalqatu taalim la xalkay jàng lañ amoon kon loolu moo tax ñi tudde ko zikr foofu xam nga ne zikr danañ ko tudde lu baree baree bari tudd yàlla danañ ko di tuddee waxtaan ci jëm ci xam-xam même xutbatul ajjuma sax danañ ko ko tuddee comme li wax ne euh, fasaw ila zikrillahi jooyu ci suratul jumaa boroom xam-xam yi nee nañ la ci borom bi tabaraka wa taala jublu mooy dox leen ida nuudiya li salaati min yowmi aljumaati fasaw ila zikrillah lañ ci jublu mooy dem leen déglu ji xutba ba kon euh, zikr boobu jubluwuñ ci lu dul jataay yoo xam ne jataay yi xam-xam lañ euh, lu dul loolu nag jullit bi tudd yàlla dañ koo sàkku ci moom ndax koo xam ne dafay tudd yàlla ak ku dul tudd yàlla mi ngi mel ni kuy dund ak ku dee kon fàww tënku nag ci ni yonent bi doon tuddee su fekkee lu am lim la nga wutal ko lim su dul lu amut su dee lu amut lim bul ko wutal lim su dee lu mu wutaloon waxtu wala place nga wutal ko ko su ko ko wutalul bu ko ko wutal tënku gu dëgër googu mooy def nit ki mu bokk ci bokk ci waa sunna lu dul loolu eh, ak jeng daf koy daal di dikkee la mu koy yóbbee mooy tàbbi ci bidaa moo xam yëg na ko moo xam yëgu ko kon daal yooyu eh, lenn ci ay tomb la wala mooy tomb yi ëpp solo sax hmm. ci yoo xam ne Eh, lenn ci nit ñi danañ ko teg mm. eh, mbir yoo xam ne li fekk daje dajewul bi daa du am te fekk yooyu mm. doonul ay charte ci ci mbir moom eh, fa tabarakallah kon tomb boobu itam leer na te muy nag tomb bu am solo boo xam ne ñu baree baree bari ci ñoo xam ne danañ ci tabbi ci biddaa ci tomb boobu lañuy ñuy waroo ndax buñ ca gisee lenn ci loo xam ne lu am njariñ la loola la ñuy daal di layale xam ngeen ne dajale ay nit euh, jox leen ay ñam euh, mbokk yu gëjoone gise daal di gise euh, ñu namante woon daal di jege daal di siyaarante yooyu yëpp ñu ne lii daal lu am njariñ la kon nag loolu ci diine la bokk fekk na ni nga ko waxee njariñ bu fekkente ne dañ ko dend leeg lor ja muy jur lor ja ëpp ko fuuf njariñ loola dootu am njariñ day mel la tey kii fiir ak fiiram rek moo xam picc la bëgg a jàpp wala leneen la bëgg a jàpp lam ko ca defal ci aw ñam ah boo nee jariñu na ci ndax picc mi kat lekk na ci pepp mi wala leneen li ñu doon fiir lekk na ci waaye bu ñu seetee la mu ca lekk ak lekk nga la mu ko jural muy bañ ko jàppee ca fiir ga fa mu mujj kon danañ gis ne njariñ loolu ñu ko defaloon muy pepp sañ ko soyaloon ñu ko méngalee ak la ko ca fekk kon boobaa duutu amati njariñ kon nag du caa génne rek lépp loo xam ne Euh, séen nañ ci njariñ waaye dañuy war a xool itam la ca nekk ci lor te diine amul lu gën a rëy ci diine ñu sos ci loo xam ne bokk ci ndax gis nañ borom bi tabaraka wa taala euh, ni mu ko teree ak ni mu ŋàññee ñi nga xam ne ñoo koy def naan am la lahum suraka u la lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ñi nga xam ne ndax dañoo am ñeneen ñu ñu bokkaale ak yàlla ñoo xam ne ñoo leen sosal ci diine loo xam ne yàlla diglewu ko di gis nga ci alquran lu bare bari bu wax naan wa yawma yunaadihim fa yaqulu ayna surakaaiya alladina kuntum tasumun bari na lool ci alquran boroom bi tabaraka wa taala yowmal qiyaam muy woo ñi nga xam ne ñoo ko doon bokkaale te mooy ñi nga xam ne ñoo doon déglu ñeneen ñuy am lu ñu leen yokkal ci diine ñu di ko def borom bi tabaraka wa taala dana leen ne andil leen ma ñooña anañu ñooña nga xam ne nee ngeen nooy ñoo man ñoo bokkoon mbir mi ba doon leen ci tëral ak di leen ca defal ak di leen ca dindil ni nga ko waxee itam ñenn ñi yéene bu rafet moo leen ci wor dañuy jàpp ne moom bu sa yéene rafetee rek mel na mbir mbirum xel la lépp loo xam ne rafetlu nga ko ci sam xel rek nga daal ne kon loolu moom lu baax la ñu bari itam foofu la ñuy tarxiise soo waxee ñu ne ah kii kat li muy def lu baax rek la ci jublu aw yiw rek la ci jublu kon daal euh, même bu dee bi daala it euh, yàlla dana ko ci fay dana ci am tuyaaba du ci am benn bakkaar fekk na euh, mbir mi nekkul rek mbirum yéene waaye mbirum ndigal la dégg topp waaye du càggee di doxee rek sa euh, bëgg-bëggu bopp ak sa xalaatu bopp kon daal euh, yooyu euh, tomb yu am solo la yoo xam ne aajara leeral bu baax a baax te itam leeral bi nga ko leeral mënees na cee sukkandiku bu baax a baax kon bu ñu dégloo tuuti alquran ñu jàll ci beneen tomb incha allah kon gannaaw bu ñu dégloo tomb yooyu jëm ci xasaaisul bidaa ak yi nga xam ne moo jëm ci lenn loo xam ne léeg-léeg nit ñi danañ ko di jort jàpp ne bu fekkente ne mi ngi ci mbir mi du nekk biddaa dañuy war a jàll nag ci li nga xam ne mooy buntu waxtaan wi dëgg dëgg dëgg te mooy xam euh, xawaayit régal yi nga xam ne euh, ci la ñuy xamee tënk biddaa waaye régal yooyu nag fi ñu ko ballaloo fi ko boroom xam-xam yi ballaloo usul yi ñu ko ballaloo muy cosaan yi ñu ko génnee ba xam régal yooyu yooyu lañ bëgg ustaas nga indi euh, ci ak leeral alhamdulilah euh, Cheikh Ibrahim bari ñoo dugg ci biir yooyu jàpp naa ne dana rafet ma euh, junj fii ne jëmmi régal yi ak lépp lu ci aju muy tënk yooyu nga xam ne moom la borom xam-xam yi tënk doonut loo xam ne man maa toog ba mu yàgg ma xalaat ko wala ma toog ba mu yàgg ma bind ko waaye ab gëstu la boo xam ne jël na waxtu yaatoo yaatu ci téere yi boroomi xam-xam yoo xam ne it duñ boroom xam-xam yu ndaw su ma la ci doon jox misaal dama lay wax ne bokk na ci téere yooyu nga xam ne làmboo nañu lu bari ci tënk yooyu donte du yépp lañ làmboo it eh, al i'tisam bu al imaamu Shaatibi bokk na ci al bidaau wa nahyu anha bu ibn waddaax bokk na ci al baais ala inkaari al bidaai wal xawaadis bu abu shaama bokk na ci al tanbiihu wa radd ala ahli al ahwaai wal bidaa bu boroom xam-xam bu ñuy wax malati bokk na ci téere bu ñuy wax ithaaru lxaqi ala alxalq bu ibnul wasir ibnu wasir euh, borom ñaari téere la ci fànn googu am na beneen téere boo xam ne alaalamu shaamix la tudd fi ithaari alxaqi ala al abaai yooyu ci téere yi gëstu loolu ci la bokk bokk na ci it téere boo boo xam ne Suyuti moo bind muy al amru bil ittibaa wa nahyi an al bokk na ci ñaari téere yu am solo yoo xam ne téere yi ibnu taymiya la ci bunt boobu mu di al istiqaama ak beneen bu ñuy wax iqtidaau siraat al mustaqim rahmatullahi alayhim ajmain kon loolu lenn ci boromi xam-xam lañ yoo xam ne seeni mbind yoo xam ne dafa ànd ak ay firnde yu dëgër yuñ jëlee ci alquran jële ko ci ak ballalu ci sunna jële ko ci ay toxal yu dëgër yu jóge ci saxaaba yonent bi ridwanullahi alayhim ajmain wa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci biir yu mel noonu ci lañ ko jële ci seenu xir ci sàmm sunna ak aar ko ak seenu xir ci dàq bidaa ak leeral ko ak tontu képp ku ko jiima dundal ci biir loolu ci lañu bindee téere yooyu eh, mu làmboo ponk yooyu wala tënk yooyu nga xam ni moom bépp doomu aadama bu ko settantal jàng ko ci ak teey eh, borom bi tabaraka wa taala mën na la caa baaxe nga jóge ca xàmmee lan mooy biddaa ak lu dul biddaa ci ji diine moom ah ballukaay yi nag muy source yi nga xam ne mooy xel li ponk yooyu di ca génne ponk yooyu ñi di ca xame biddaa source yooyu dañuy wax ne ñett la am na ñetti ballukaay yoo xam ne daal ci la ponk yi ñuy tënke wàllu daal ak lu ci aju ci la ñuy génn ñett yooyu ba ci jëkk moo di at taqarrubu ila allahi taala bi ma lam yashra jaamoo yàlla loo xam ne santaanewu ko loolu mooy ba ci jiitu ñaareel ba alxuruju ala alwadaci diini fekk tëraliinu borom bi tabaraka wa taala nam nga génn tëraliin woowa kooku mooy ñaareel bi ñetteel ba at tajarruu ala daraa'ici almufdiyati ila albidaa yi nga xam ne ñal yi nga xam ne boo ci jaaree dañ lay yóbbu ci biddaa nga ngay xuus ci biir ñal yooyu kooku itam ballukaay la ci yi nga xam ne dañuy yóbbee euh, xam xam fiq foofu dana tax nga dégg ponk yooyu dana tax itam nga dégg biddaa kon ñett yooyu mooy ballukaay yi bu ñu delsee ci bu jëkk bi la koy gàttal moo di gépp jaamu yàlla goo xam ne yàlla santaanewu ko ci ab téeréem wala ñu yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loola ku ko tuddeeg jaamu yàlla jëfe ko indi nga bidaa boo xam ne ak réer la kon kooku moom moo lay daal di woon ne boobu bunt lay daal di leer kon bu ñuy wax sàkku xam-xam mooy jéem a xam lan la yàlla wax ak lan la yonentam wax yooyu soo leen xamee kon borom bi tabaraka wa taala wala nga xamee ca loo jaamu yàlla ci yooyu yaar moom say jaamu yàlla mën naa wér hmm. kon nag loolu dana laaj nun nuy dox ba mu yàgg nu taxawaat xoolaat suñu bopp waaw nun ndax di ci sonn di ci féer-féeri guddi ak bëccëg lu ne nu daj ko ci waaw nan xoolaat ba xam lii mi ngi ci alxuraanam sun mi ngi ci sunna mm-hmm. su fekkee ne ci la nekk kon alhamdulilahi rabbil alamin ñu daal di continuer fas ci yéenee dëgër nag mm-hmm. dëgër yéen woo xam ne e, dara du la mën a tàqaleeg moom lu dul dee mm-hmm. su fekkee ne nag am na yoo xam ne kon dañ koo desee te yooya ndekete dañ koo doon noon noonu rek wala danoo jekki woon jekki ba mu yàgg nu rafetlu ko di ko jëfe te ndekete alxuraan ak sunna santaane wuñ ko kon yooyu moom nan ko daal di teg fi suuf kon loolu moo tax même biir eh, cosaan loolu wala ballukaay boobu eh, boo ko seetlu boroom xam-xam yi ñu ngi ko delloo ci waxi borom bi tabaraka wa taala aaya ji nga tudd sànq mm-hmm. am lahum shurakaau sharau lahum min ad diini ma lam yadan bihi llah mm-hmm. waaw xanaa ñii dañoo am mm-hmm. ñu ñuy bokkaale maanaam yeneen i yàlla mm-hmm. yoo xam ne ñoo leen di sant nag ñuy jëfe léegi ñu bokkut ak yàlla mm-hmm. su fekkee ne yàllaa ngi yoonal mm-hmm. ñuy yëg ne la mu yoonal santaane ko dañ ko war a topp yowit boo toogee ba mu yàgg nga jàpp ne am na keneen ku war a yoonal wala mu santaane nga dem toppi ko ah waaw ndax kon léegi dangaa am nag jeneen yàlla joo xam ne ñoom ndigalam ngay topp léegi wala ndigalul yàlla ngay topp kon laaj boobu la jullit bi bu ko laajee boppam bu dellusee euh, boobu ballukaay dina daal di leer ci moom moo tax dañuy wax ne kullu man daana allah bi cheyin lam yashrahu fa huwa mubtadi képp koo xam ne mi ngi jaamoo yàlla loo xam ne yàlla santu ko ko yàlla santu ko ko kooku mi ngi indi bidaa moo tax kenn ci borom euh, xam-xam yu mag yi fii dañuy wax ne dafa mas tëdd ab taalibeem di ko bës hmm. euh, ndekete fi muy bés ak taaba fa nekk gu méttee méttee metti te sëriñ bi rus na ko ko rus na ko ko yëngu rus naa wonk rus naa def nenn taalibe di bés di bés rek taab gi di metti di metti bi mu bësee ba bàyyi nag mu ne ah bu fekkee jëf juñ santaanewut di nii la mel hmm. kon mat naa wartu waaw ah, kon ba muy bés néewu ko woon bësal fii mhm. moo dàkkal boppam rek foo xam ne jàpp na ne war naa soxla ku ko fi bësal muy bés boobu kon na xeeti jaamu yàlla yi nga xam ne mhm. borom bi tabaraka wa taala santaane wu leen yu ma tawat tandiku la ndax léeg-léeg nga defe ne kat yaa ngi indi njëriñ ndeke lor ngay indi mhm. moo tax alimaamu Shaatibi ci téeréem boobu ma junj léegi daf ne bidaa amul benn maanaa lu dul mooy jëf joo xam ne ka ko jëf dafa defe ne mi ngi def luñ santaane fekk la muy def kenn santaane wu ko kon kooku daal mooy aslu bu njëkk bi mm-hmm. nga xam ne moo di at taqarrub ila allahi taala bi ma lam mm-hmm. ñaareel bi mooy alxuruj ala al wada diini mm-hmm. fekk na yàlla tërale nga soppi tëraliin wa maanaam nga soppi melokaan wa foofu moom euh, sosoo jaamu yàlla gi waaye da nga koo indee neneen bokkut na mu war a dikke loolu moo tax bépp diine boo xam ne nit ki dafa ñëw dëngal ko wala mu soppi ko ba nga xam ne tëddewut na ko borom bi tabaaraka wa taala tërale woon kon kooku day daal di indi biddaa te nag bu ñu fàtte ne biddaa bu mën a doon ak réer la kon képp koo xam ne sos na dara loo xam ne dafay soppi lenn ci tëriinu diineem moo xam ca melokaan walla moo xam ca lim ba bu dee lu amub lim la mm-hmm. moo xam ca jamono ja bu dee lu am jamono la moo xam ca béréb ba bu dee lu am béréb mm-hmm. kooka day daal di indi bidaa ci diine mm-hmm. euh, moo tax foofu <coughs> ibnu abil izz alxanafi ci charxu al aqida taxawiya am na tomb yu am solo yum fi def euh, boo demee ci charxu al aqida taxawiya dafa wax ne fal muluku al jaaira yactariduuna ala alshariati bi siyaasati al jaaira Mm-hmm. dafa tudd ñetti kuréel ci nit ñi ñoo xam ne ñoo ñu ñoo baaxoo soppi na yàlla tërale mm-hmm. ñooñu mooy ñaan mu ne ñu ci jiitu mooy buur yoo xam ne dañoo jàng ay attekat nee na ñooñu dañuy ñëw mm-hmm. soppi sharia ak seeni politique yi bopp yoo xam ne yu jàng la yu dëppawut ak sharia ndax it kat lu dëppawut ak sharia nag du mën a jub mukk wa yuaaridunaha biha nee na suñ dikkee na sharia tëddee dañuy tër seen tëri leenu bopp woo xam ne day jàkkaarloo ak sharia hmm. wa yuqaddimuunaha ala xukmillahi wa rasulih ne su ko defee ñi jël lañu ñu tër hmm. jiital ko door caa teg atte bi yàlla akub yonentam wala sax ñu bañ a faale atte bi yàlla akub yonentam hmm. kon loolu mooy kuréel bu jëkk bi jëkk réer ci ci mbooloo yi bi ci tegu mu ne wa axbaaru suu wa hum al ulamaau alxaarijuuna an alsharia bi aaraihim wa aqisatihim alfaasida almutadaminati taxliila maa xarama allahu wa rasuluh wa taxrima maa abaaxa wa ictibaari maa algaa wa ilgaai maa atabara wa itlaaqi maa qayada wa taqyiidi maa atlaqa nee na borom xam-xam yoo xam ne gaa boroomi xam-xam lañ waaye nee na ñooñu ñu génn sharia lañ ci seeni xalaat ak seeni xiyaasi bopp suñ dikkee daal seeni xel lañ topp walla ña leen di daganal loo sax léeg-léeg nga gis borom yi xam-xam yoo xam ne pare nañ pour génne fatwa ci lépp loo xam ne kuréel bañ bañ bëgg seen ngërëm soxla nañ ko. Mm-hmm. mën nañ leen a gëstul ba génne leen fatwa boo xam ne dana tolloog nañ ko bëgge mm-hmm. eh, fatwa ba nag du jaagi ne dañ koy amee ci sharia waaye ci dëngal ga. Mm-hmm. Eh, ak soppi ga. ca la ñuy mën a fexe ba indi ay aaya alxuraan soppi ko. tërale ko noo xam ne bokkut na ko sunu borom tabaraka wa taala bëgg. kon ñetteelu kuréel ba mu ne وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم nee na ñooñu ay ay kuréel lañ yoo xam ne dañoo mel ne ay làbbe ay sufiyanke yoo xam ne dañoo jóg topp seeni gént yañ rafetloog yañ jort ak ya nga xam ne dañoo nelaw mm, jékki-jékki mel na da leen a feeñu wala ñu jeneeru ko yooye lañ jël di jiital ko def ko mu nekk diine boo xam ne borom bi tabaraka wa taala digliwu ko mm. nee na ñooñu lim leen di indil moo di jàdd nañ diine yàlla ba noppi yàq diine ji nga xam ne moom la borom bi yoonaloon ndax soppi ga mu koy yàq mm-hmm. ni mu ko yoonale woon ci alxuraanam ak làmmiñu yonentam mm-hmm. loola dañ koy daal di soppi loolu mu ngi ci charxul aqida taxawiya boo demee ci xëtum mm-hmm. ñaar téeméer ak ñaar fukk ak ñaar mm-hmm. kon nag bidaa bu fekkee ne dañ koo xoole ci anam googu muy anamu soppi eh, tëraliinu borom bi tabaraka wa foofu amut luñ naan yéene na ci jaamu yàlla wala yéenewu ci jaamu yàlla waaye ginnaaw soppi na li borom bi tëraloon rek mhm. kooku moom dal nay indi biddaa kon mhm. kooku foofa du cib sart mhm. ñetteelu source bi moo di at tajarru ala al mufdiyati ila al bidaa euh, bañ a wattandiku bañ a wattandiku ñal yi nga xam ne bu ci nit ka sóoboo daf koy yóbbu ci biddaa mm. ndax ñal yooyu ci seen jëmmi bopp mën nañoo bañ a nekk biddaa waaye nag boo ci sóoboo moom ci boppam daf lay yóbbu foo xam ne biddaa lay mm. tudde zaria nag ci ci lislaam mm. wala ci usul mooy loo xam ne moyen la aw yoon la woo xam ne daf lay yóbbu ci leneen mm-hmm. dëgg la moyen bi ci boppam wala yoon wi ci jëmmi boppam mën naa bañ a doon lu xaraam waaye fam la nar a jëme ci boppam boo fa àggee mooy xaraam loolu moo tax dañuy wax ne saddu daraaya kooku aslun min al usul mhm. bépp yoon boo xam ne dafay xëcc nit ki yóbbee ko ci lu borom bi tabaraka wa taala tere woowa yoon moom sharia dafay digle ñu sakk ko mhm. day digle ñu sakk ko daanaka boo seetloo gis eh, yu baree bari ci santaane sharia yoo xam ne dafa wax ne nañ ko tër mhm. santaane ko farataal ko farataal gu gu taratar sax bañ cee caaxaan fekk na du caagi ne jëmmi loola ci boppam moom moo doon lu xaram waaye dafay yóbbe nit ki lu xaram mm-hmm. xam nga boo seetloo lu mel ne colum jigéen mm-hmm. ni ci sariya tarale mm-hmm. su fekkoon ne garanti na ne xoole bi nit ki di xoole dafay xool rek yem ci kon mën nañoo wax ne jëmmi xool boobu ci jëmmi boppam euh, mën naa bañ a doon lu xaraam waaye nag la cay tegu mooy mbir na ko waykat ba waxee nazaratun fa ibtisaamatun fa salaamu mm. fa kalaamun fa mawidun fa liqaawu mm-hmm. noonu la yëf ya toftaloo mm. xool ba mm. mooy indi muuñ mooy indi nuyoo mm-hmm. nuyoo mooy indi waxante mm-hmm. waxante mooy indi joxante rendez-vous joxante rendez mooy indi daje kon loolu boo ko seetloo aw yoon la woo xam ne borom bi tabaaraka wa bu dee sakk dafay sakk yoon wala yóbbe ci lu bon laa taqrabu zina bu leen jege njaaloo kon zaria boobu déggin la am hmm. lii misaalam moo di borom bi tabaraka wa dafa tere ñu ŋàññi eh, yàlla yi nga xam ne yàlla yi neen la yoo xam ne ñoom la yéefari di jaamu hmm. ndax jëpp yàlla jurul yàlla rek ki bind hmm. ku dul moom jooju yàlla neen lay doon te kat bañ lépp lu ñuy jaamu te du yàlla ah te loola nangu ko su dellu xellu bañ ko ci diine ji ci la bokk su fekkee loola du lu xellu it jëf ji muy jaamu lu dul yàlla jëf jooju bañ ko ci sharia la bokk waaye teewut su fekkee ne yi wala xas wala saaga yàlla yooyu ñuy jaamu mm-hmm. daf lay day jur musiba mu gën a rëy moomu hmm. bu boobaa dañ lay wax bul saaga yàlla yooyu hmm. borom bi ne wala tasubbu alladina yad'uuna min duni illahi fa yasubbu bi gayri ilm hmm. bu leen xas bu leen ŋàññ bu ñi jaamu te duñ yàlla ndax soo ko defee ñii danañ saaga yàlla ci boppam ngir seenu noonu bu tar dana tax ñu xas yàlla bu boobaa su fekkee ne nag. jaamu gañ ko doon jaamu. mooy la dul yàlla jaamu gañ ko doon jaamu. lor ju rëy la ba tax nga war koo bañ. ba tax nga war koo ŋàññi ŋàññi googu su fekkee nar naa indi meneen musiba moo xam ne moo gën a rëy muy ñu farwal batiku yematuñ ci jaamu seeni xiram waaye faf ñuy saaga yàlla ci boppam hmm. kon bul ŋàññi seeni xiram bàyyi leen ak seeni xiram ñu jaamu ko hmm. buñ dajeeg borom bi tabaraka wa taala mu lakk leen mu jeex hmm. kon kooku cosaan la ci sakkatu bépp bunt boo xam ne dafay yóbbe nit ki mu àgg ci loo xam ne luñ xaraamal la mm-hmm. loolu moo tax dañuy wax ne alwasailu mm-hmm. laha ahkaamul gaayaat mm-hmm. mooy yi ngay jaar muy yoon yi ngay aw walla kerkeraan yi moo fam la jëme ñooy bokkub àtte kon loolu bokkut ñi naan algaayatu tubarirul wasila boobu xaaye baaxut boobu tënk mm. du bu baax Mhm. bi baax moo di fa nga jëm moom la ñuy xool lii nga war daal di dox fa nga jëm su fekkee ne fu baax la yoon wi nga topp kon wu baax la mhm. waaye su fekkee yoon wu jëm fu bon la woowa yoon baaxul dal koy sakk wala nga daal di wàññiku mhm. moo tax wa ma adda ila al mamnu'i fa huwa mamnu' lépp loo xam ne dafa lay yóbbu ci luñ xaraamal loola ci jëmi boppam luñ xaraamal la kon nanga ko bàyyi ah yi waral nag ñu xam jëf joo xam ne boo ko toppee daf lay yóbbe biddaa wala yooyu ay mbir la bokk na ci léeg-léeg da ngay gis yoo xam ne lu tàggan la sax wala luñ sopp ah nit ki danañ bëgg lool mu di ko jëfe itam ndax ci xeeti jaamu yàlla ci la bokk kon jëfe googu mu koy jëfe eh, su ko mënee def fu wéet moo gën mm-hmm. waaye su ko feeñalee ci mbooloom nit ñi su fekkee moom ku ñuy roy la ngir xam-xamam wala ngir njubam nit ñi daal doyloo nañ ko ba su jëfee nit ñi jàpp ne mm-hmm. euh, la muy jëfe lu jaadu la mm-hmm. su fekkee dafay jëf ci kanam nit ñi loo xam ne leerut ci seen bopp lan moo tax mu di ko def mm-hmm. te saa bu ñu xoolee rek gis mu di ko def ba siiwal ko ci kanam nit ñi loolu day tax nit ñi di ko def te day taxit ñi di ko saxoo mën naa doon sax luñ sopp nit ñi dem ba defee ne lu war la ndax dañoo wax ne ginnaaw gis nañ diw di ko def kooku moom def ko daa war suñ ci joxoon misaal la ci mbooloo ci jàkk yi mm. ci lu dul weeru koor mm. suñ toogoon ba mu yàgg rek kuñ doyloo lool jekki-jekki woote def ko mm. bu ëllëgee mu defaat ko bu ëllëgee mu defaat ko kooku su bàyyee it nit ñi dañuy daal di jàpp ne loolu dëgg dëgg borom xam-xam bu toll ni diw ginnaaw loolu nangu na ko kon kooku war nañu mën a continuer di ko def te fekk dëgg la jëf ko julli mbooloo ci naafi la eh, ci lu dul weeru koor sax na sax na comme ci xadiisu xakam ibnu amr al xifaari ci saxiixu muslim sax na ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jiite na leen ci këram euh, jullig la euh, ndax boobu julli na julli mbooloo moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci jàkkaam ba noppi door a ñëw jiite leen ci naafila ci këram ngir itte joo xam ne moo taxoon mu def ko mm-hmm. kon foofu daal nay sax waaye nag saxoo ko di def jamono yu nekk ngeen àndandoo dem dajaloo fi béréb julli seen jullig naa fi la jullig mbooloo saxoo googu su ci duggee bi daa day daal di feeñ loolu moo tax ànd ak ne naafi la lu sax la lu baax la lu bari tuyaaba la jëfe ko ci mbooloo itam lu sax ci sunna la waaye nag su fekkee ne jëfiin wa ak feeñal ga dafa jóge ci jëmm joo xam ne ku ñuy roy la ba tax na su ko defee ci mbooloo mi ñu jàpp ne lii kat kon sunna la suñu war a saxoo di ko def kon su boobaa day daal di war a sakk booba bunt yemale ci boppam di ko def ci këram moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam soññee ci naafila ci biir kër di wax ne li gën ci julli yi ngeen di julli mooy ga ngeen defe ci seen kër lu dul gañ farataal lu dul gañ farataal googu moom defe ko ci jàkka ji moo gën ñaareel bi saxoo ko itam fekk jëf joo xam ne it euh, dañ koo sunnaal wala dañ koo daganal yoonal nañ ko daal sañees na ko nga saxoo di ko def faw kooku mën naa yóbbeek ku warul woon a ku ko warul woon a saxoo di ko saxoo saxoo gi ci yëmi boppam mën naa yóbbee nit ci biddaa boroom xam-xam yi dañ koy misaale ci julli ba àggal ñépp àndandoo yëkkati seeni loxo ñaan xam nga yëkkati say loxo di ñaan kooku sax na waaye mbooloo mi saxoo saa buñ jullee ba àggal yëkkati seeni loxo ñaan mm. kooku ku ko xool gis jàkka ja saxoo ko ilimaan ja di ko def mm. maa moom yi yëkkati sa seeni loxo ñi ñaan ñi naan amin ñii di ñaan ñii naan amin mm. nga saxoo ko faw mm. dañuy defe ne kon loolu lu war la nit mën na caa jële jàpp ne kooku day lu war wala day sunna boo xam ne bu sax la te fekk sax même du sunna boo xam ne dafa sax boo xam ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daf ko daan def wala daf koo saxoo woon loolu moo tax Mm, saxaaba yi doon nañ xir lool ci ràññaleel nit ñi loo xam ne lu war la ak lu warul omar ibnul xataab radiallahu taala anhu benn bis dafa uh, yéeg ci minbar bi di xutba mm. ba jàng laay joo xam ne sujjóot daf caa nekk mm. wàcc daal di sujjóot mbooloo mépp sujjóot mu yéegaat continuer ab xutbaam ca beneen ba mu def ko bi mu agsee ci aaya bi gis ni nit ñi préparé di bëgg a sujjóot mu daal di bañ a sujjóot bi sël bi ñu noppee mu ne leen ah man kat su jootuma ndaxte damaa bëgg ngeen xam ne loolu kenn farataalu ko ci noonu. Mm. maanaam du farata loolu rek lañ mën a xàmmee farata ak sunna mm. mooy bu la neexee nga def bu nga bàyyi. yooyu doon na yoo xam ne. Mm. Cheikh Ibrahim lenn lu ci nekk. mën naa yóbbe nit ki mu tàbbi ci biddaa te fekk la mu doon def ci boppam. du biddaa. nekke noonu itam woote daje ci mbir. moo xam ne xëy na mbooloo taxu ko woon a jóg nga fexe ba wutal ko mbooloo. loolu dana yóbbe nit ki loolu al imaam ahmad euh, dañ ko laaj ne ko waaw mbooloo moo xam ne dañuy dajaloo jekki ba mu yàgg ñu bëgg a ñaan rek woote pour ñaan ñi daje yëkkati seeni loxo di ñaan loo ci xam mu ne loolu day sibuma ko ci ñi nga xam ne ñooy mbokk yi xam su fekkee ne dajewuñ nag ngir loolu nga xam ne loolaa tax ñu daje si fa ba tey itam bari wuñ ndax xam na ne suñu baree ñëpp dugg ci su fekkee borom xam-xam yi ñoom loolu leer na ci seen bopp danañ xam ne lii du sunna ni ñu koy defee doonut sunna soo xam ne su saxee noonu la waaye lu dagan la su ko defee ñaan nga du am lenn lu muy jur dañoo jékki-jékki daje fi béréb boo xam ne leneen a leen fa dajale woon. ñu jékki-jékki ñaan te xam nañ ne ñaan googu. doonut sunna su yonente bi sallallahu alayhi wa sallam saxoo woon di ko def. waaye dañuy xam ne lu dagan la. te it mbooloo ma bariwut ba ña xam ak ña xamul nekk ci biir. mu ne bu boobaa moom duma ko sib waaye nag su fekkee mbooloo ma bari na mm. ba ñu xam ak ñi xamul nekk ci biir ñu gis mbooloo ma imaam ju toll ne diw mm. mu tàllale loxoom di ñaan ña ca des naan amiin mm. kon dañuy wax ne fu mbooloo dajeeti rek kon loolu war nañ ko daal di def su ko defee bi daal daal di tax daal loolu doon na mbir yoo xam ne yu mat a bàyyi xel ci ci bunt boobu la euh, danañ ci dolli loo xam ne ci sewuk wala xóotub jis wala euh, xam-xam bu yaatu ci ñi nga xam ne ñoo di asalafu saalix ci bunt bii mm-hmm. al imaam ahmad euh, dañ koo laaj mm-hmm. ne ko dafa am benn buur boo xam ne mm-hmm. dafa dépensé alfu dinaar maanaam junni dinaar ci jamono jooje da koo def ci jaafire yi benn kaamil maanaam Euh, couverture ba nga xam ne moom la ñuy muure kaamelu alxuraan ba mm-hmm. ma nga ko defaree lu mat junni diinaar loolu bu doon léegi ay million la mm-hmm. te imaam ahmad duñ fàtte ne ngërëm mm-hmm. mooy dafa sib ku rafetale alxuraan wala liy ëmb alxuraan nga def ca or nga def ca wurus kooku daf koo sib waaye lan la wax foofu mu ne kooku bàyyi ko loolu moo gën mooy li gën ci loo xam ne ñoom def nañ ci seen xaalis ñoom buur yi daa ne dama ragal ne. Mm. su ko deful ci téere bi yàlla bi. Mm. mën na koo def ci benn téere ci téere yi nga xam ne dañuy tasaare kéefër. Mm. wala ñuy tasaare ak naafiq mu ne kon euh, bàyyi leen ko mu def li muy def. kon foofu laaj na ab gis bu xóot ci wàllu usul. ak lënkale. comparer. diggante li nga xam ne mooy njariñ yiy si ci xeet wi ak njariñ ak lor yi nga xam ne mën naa ñëw ci xeet wi mm. foofu ab gis-gisin la boo xam ne ki dem ba àgg ci wàllu ijtihaad mm. diggante boobu mooy xool lam saña mm. saxal foofu ak la nga xam ne maslaxa dana tax mu bàyyi mu sax ndax la nga xam ne maslaa dana tax mu dàq ko kon lii daal ñetti source la boo xam ne euh, tënk yi nga xam ne danañ ko tudd ci yeneen jataay yi insha allahu taala euh, ñi ngi dellu ci ñetti source yooyu euh, kon Cheikh Ibrahim waaw ah, kon law tomb yu mag yi nga xam ne ni nga ko leerale moom ci la biddaa di delluwaat ba tax na tënk yi ñu koy mën a xamee yépp itam foofu la ñuy soqi ko mu ñett yooyu nga ci tudd bu njëkk bi mooy di jaamoo borom bi tabaraka wa taala lu mu diglewul kooku moom euh, mooy cosaan ci bidda ndax day mel ne kon dafa mel ne yow da nga yoonal ci diine ji wala bu fekkee ci keneen nga ko jële dafa am keneen koo xam ne moo lay yoonalal ci diine ndax gis nga la ca borom boo wax maalam ya'zan bihi llah loo xam ne yàlla diglewu ko kon foofu war nañ xam bu baax ne lépp lu ñuy def tudde ko ak jaamu yàlla te mooy lépp lu ñuy def di ci yaakaar ak pay goo xam ne borom bi tabaraka wa taala dañu ko cay fay te jàpp naa ne lépp lu ñuy def di ca dépenser sa waxtu di ca dépenser sa alal di ca ñàkk ak jot di ca togg ay coono yu metti la nga ciy war a jublu mooy borom bi tabaraka wa taala fay la te borom bi tabaraka wa taala la muy fay mooy la nga xam ne moom la moom la digle waaye lu ñu ko jaamoo te fekk diglewu ko loola kat borom bi diggewu ci ak pay moo tax imaam ibnul qayim di wax naan xaqul ilaahi ibadatun bil amri laa bi hawa nufuusi fa zaaka li sheytaani nee na borom bi ak ji mu am ci jaam ñi mooy ñu jaamu ko ndax moo tax mu bind leen waaye nag jaamu ga dafa am sant mooy bil amri ci la mu digle waaye nee na désu ko jaamoo ci bànneexu bakkan jaamu guñ teg ci bànneexu bakkan ak lu ñu ko rafetlu rafetlu nee na loola du jaamu yàlla waaye jaamu seytaane la ndax seytaane moo leen di rafetalal seeni jëf fa zayyana lahumu seytaanu amalahum fa huwa waliyuhum al yawma seytaane mooy rafetalal nit ñi la ñuy fent ca seeni xel te jëlewuñ ko ci alquran jëlewuñ ko ci sunna kon nag boobaa bu ko defee Euh, jaamu wuñ ko borom bi mais jaamu seytaane la ñaareel ba li nga wax muy génn tëraliinu diine foofu itam nit ñi dajoo jàppe diine lu yomb loo xam ne luy tawee ko di dem rek la te fekk na lu ñu tëral la wutal koy ponk wutal ko fu mu yem ndax loo xam ne moo tax ñu wàcce téere bu toll ne alquran yónni ku toll ne sayidna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dundam bi yépp amu ci woon beneen yitte bu dul woon bu dul jottali nit ñi diine jooju leeralal leen ko kon diina jooju nekkul loo xam ne lu ñuy for la wala lu ñuy tàndale la waaye lu tegu ci ay ponk yu leer a leer a leer la